Robert Nesta Marley mu ngi juddu juróom benn fan ci weerub février ci atum 1945 ci dëkk bu ñuy woowee Ninmil ca Jamaïque moom nag ñu gën ko xam ci turu Bob Marley mu ngi commencé di way depuis bi mu doonee tout temps mu amoon yéene sori ci lool ba tax mu daan jël ay cours yoo xam ni dina tax mu doon icône ëllëg ay titram yu mu doon def bu ci mel ni ska nekkul woon loo xamante ni nit ñi taamu woon nañ ko di ko déglu bu baax a baax waaye moom mi di Bob Marley mu bàyyeeku benn yoon bi ñu demee ba ci atum 1973 Bob Marley ci la ko nag nit ñi daal di découvrir mu commencé nag am succès waaye nag ci diggante bi moom Bob Marley amoon na ay jafe-jafe ci dundam ba tax na sax mu doonoon di liggéey ci ay usine yoo xam ni lañ ko fay fay matalu ko woon dara ci dundam jafe-jafe yooyu mu doon dund sax mën nañu wax ni moo tax mu am succès ci ay wayam ndaxte gis nañ thème yi nga xam ni mu ngi ko doon dégager ci ay xeetu musigam tax ba public bu bari doonoon ko di suivre ndaxte joxoon na gëdd bu baax ñi nga xamante ni ñoo di xeetu nit yu ñuul ñi moom Bob Marley nekkoon symbole ci loo xamante ni rek dina jëmmal nit kanam waaye itamit mu doon xeex ngir àq ak yelleef mujj gi sax mu doon icône maanaam mu doonoon koo xamante ni référence la ci message yi nga xamante ni ñi nit ñi ñu ngi ko doon gis ci biir musique ci côté ngëm waaye tamit ci côté aada cosaan lépp nag mu daal koy Bob Marley nag doonoon ab jàmbaar ci àdduna wërngal këpp nekkoon nag ki nga xamante ni moom moo yore kàddum ñi nga xamante ni ay néew ju doole lan ak ñi nga xamante ni dañ leen doon soo fantal ba tax na tey jii ay waykat yu bari sax daal di jël système bi nga xamante ni moom la daan doxalee. bi ju ne mee nag ba ci atum 1980 la waykat bi di Bob Marley daal di perdroon li nga xamante ni moo di connaissance ci moment bi nga xam ni mu ngi doon def ay entraînement am New York ginnaaw gi nag ci lañ ko daal di jël defaral ko ay examen ñu daal di découvrir ci moom tumeur tumeur yi nag mi ngi tolloon ci juróom ñett yi faree woon ci bopp bi ñu gisaat beneen tumeur ci estomac bi ak beneen boo xamante ni mi ngi nekk ci dënnam cancer bi nag dem ba wër ci yaramam waaye moom Bob Marley taxul woon mu yee ci yàbbi wax ci kenn dafa daal di rek préféré woon noppi ba tey mu wéy di def ay concert am bañ ci gën a ràññee bokk na bi nga xamante ni bokk bi mu defee ca Saint-Denis fële ca France boobule concert mu dajale woon si sax lu tolloog si juróom fukki junniy doomi aadama ci jeexantalu atub ba tey moom Bob Marley ci lañ ko daal di jëloon daal di koy faj faj googu sax dem ba mu dundoon ba jeexal at bi waaye terewul woon feebar bi demoon ba ëpp ko doole moom Bob Marley doonoon nit koo xamante ni dafa bëggoon rek génnee àdduna ci dëkkam bi di Jamaïque waaye fi ko feebar bi eggoon taxoon na mënuñu ko woon yépp ci ko ci dëkkam bi xamante ni moom la mës a bëgg ba tax na Bob Marley mii daal di génn àdduna sax fukki fan ak benn ci weerub mais ci atum 1981 ci dëkk bi di Miami fare ca États-Unis ñu daal di koy rob ñaar fukki fan ak benn ci weerub mai ci dëkk bi ñuy wax Saint Anne waaye ñu nemmeeku woon ay junne junne nit yoo xamante ni ñëwoon nañ ci dëjëm bile ay jalooreem nag doon loo xamante ni kenn dootu ko naatable ba jamono ji nga xamante ni ba mu dëddoog léegi ëpp na fanweeri at ak ñett terewul muy wëy di sax ci xol dårlige